باب الغيب يا رب لم يفيد لذاك صرفنا نحو بابك بجهتي يا حي يا قيوم الكريم من التجا إلى بابي من على كل نقمتي فأنت حليم يا صبور من جفا أنا عبد تبادي ذلتي فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي إليك بذوق وافتقار وفاقة لتغفر لي يا ربي من كل زلتي وبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا من شدتي فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي فيا ربنا اسر إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية والشفيع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبة بآدم إدريس وور ويونس ولوط ونوح حال لقلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وللكبر يحيى ثم عيسى وسيلتي كذا زكريا شعيب وصالح تقينا لدى الدارين من كل واحد ومن آل بيت المصطفى جم شملنا لأصحابي كشف الشلال يا بأقمال بدر يا إلهي وسيدي وبالمال الأعلى شمل كل أمتي إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوت بلتشنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله تكل الامر أمري لغير ذرتي للعذرتين لتسخنا أذن بالقلب القلب كل قسوتي مدى الدهر والأيام والذنب حاصل وصاع غراب البيت معلم رحلتي مدى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جثتي مددر yëg yëg bi nga ci am day yëg yëg bu rëy lool yëg na ñi doon liggéey dañ doon liggéey te yàlla tax ñu doon liggéey lii liggéey biñ ci liggéey defuñu ko pour ma samb defuñu ko pour ma demb dañ ko def ngir yàlla te ki tax ñuy def liggéey bi jar ko lool te it sens bu rëy la ñu am ñoom ñi liggéey liggéey bi parce que du liggéey boo xam ne ku nekk lañ koy jox kon ñi ñu tànn ba jox leen ko am nañu mérite te am nañu sens ndaxte ay nit lañ yoo xam ne bi ñu ñëw indi ñëwuñu pour ku leen fay dañu ñëw pour joxe seen doole ak seen xam-xam te yàlla tax te def gi ñu doon def te yàlla tax ci la leen yàlla jàppale ba lépp sotti ñu it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nga xamee ne bi yàlla dimbali ñu dimbali nañu ba ñu boole ñu ci ñoom ñu bokk ci ñun te liggéeyal alaaji Malick ku ko def rek da koy jéem a fay mais mënoo ko fay su dee waa Ndakaaru mënuñu fay alaaji malik lu tax mënuñu ko fay soo demee suñu fukki penc ak ñaar dañuy wasifa danañ xadara lépp loo xamee ne bi tariixa bi daf koy santaane ñun dañ koy def ñun waa Ndakaaru te li ñu ko may mooy ba mu ñëwee wax ak suñuy kilifa fekk leen ñu nekk ci yeneen diine maanaam beneen tarixa bu bokkul bi ñu nekk mu ne leen li ngeen nekk tarixa la bu leen ci génn diine la bàyyi leen ma xale yi bàyyi ga nga ne moom la mag ñi bàyyi woon Alaaji Malik ak xale ya ci la mag ñëpp jeexee xale yi rek des fi xale yëpp doon ay tiijaan te booy xool ndakaaru boo gisee ñu man luy bari ci li ñuy def ci fii la ko may li ñuy jëfandikoo ci istixfaar li ñuy jëfandikoo ci haylala li ñuy jëfandikoo ci salaatul fatihi néew na fooy dem fekk ko fa guddi bëcc suba ngoon ndakaru ci lol lañu nek motax ku xey ku ne do jeblu fenn lu ndakaru te bo yegge yalla fajj sa soxlo te dara mayu len ko lu jaamu yalla gu set boole sen bop ci lepp lo xamee ne lu bax la ñun lolu moy li nga xamee ne moom defal budé juma ji nak li ñaan moy ki nga bi fi tok toog toogeen yu rafet lool parce que ñëwul jël boppam ne maay xalifa équipe la am xalifa bi équipe la am du mooy décider lu xew lu ne day wa famille bi lan ngeen ci xam ku nekk wax li nga xam ba pare ñu xool li nga xamee ne moo gën ba pare ñu xool li nga xamee ne moo gën ñu jël loola def loolu moo tax mu man lii tey waaye li fi mag ñi defoon dindiwu ci lenn te sëñ Babacar si radiyallahu taala daan wax naan gone kese yu ànd Babacar wóolu ko magi kese yu àndaat Babacar wóolu ko ñu ne lu Babacar wóolu mu ne mag ñeeg xale yi ànd mag ñi xelaatal xale yi yi jëf te ñii def lii loolu la ñu ànd woon bi xalifa bay xelaat ñoom ñu jëf kon yal yàlla defal ñu taw tawfiq yéen ñi nga xame ne yéen a yor lii ngeen jëfandikoo guddi ak bëccëg subax ngoon ñun li ñuy ñaan ci yéen mooy yiñ ci am te yëpp nekk ci kër gi ngeen fexe ba nekk benn parce que ñun suñu sens yëpp mooy nekk benn diine la ñuy woote te waxuñu ne le pour diini ji kii day sol mboobu mu wert kii sol mboobu mu xonq rek kenn du kenn du wax ak kenn déedéet li ñu bëgg mooy ñun ñëpp ñu defante ay soppe bëggante yéenante loolu mooy li nga xamee ne moom la maam Maodo bëgg moom la ay njabootam bëgg kon ñun li nga xamee ne ñooy seen i taalibe nañu fexe ba loolu nga xamee ne moom la ñu taxawal ñu nekk ci ak ñoom di leen ñaanal yéen seen taxawaay rafet lool ci lii ngeen yore te mooy lépp lu xew ci kër gi ngeen génn ko ba ñëpp yëg ko xam li ñuy def lu mu doon yan yàlla fayal ñu leen barakati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilayka tawassalna bi xayri lbariyati fala budda min shaqwa ila allahi kurbati فما لي غير الله جابر كسرتي السلام عليكم mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm gannaaw bi ñu sante suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal suñu sëriñ suñu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour bi yàlla na ko yàlla yokk wér wéral ko guddal fanam ba naal bu mu naaloon yëpp projet bi nii mu yet mu egg ñu eggali ko jàmm teg ko ci loxom mu fekk ko dox tànkam ñëw ubbi ko ci ay ati at mu jiite ko maanaam dañuy ñëwoon pour defal suñu mbokk taalibe ak jullit yëpp euh, le point sur euh, état d'avancement travaux yi soo gisee ñu dooree ko fii euh, jumaa ji nekk nii suñu kanam maanaam fii extérieur bi lañ doon wax mooy li ëpp léegi liggéey maanaam mooy liggéey ci jumaa ji maanaam esplanade bi mooy fu ñu toll nii Madame c'est 8600 mètres carrés pour nous tous les mètres carrés à poser le mat poser posé nañ ko presque six à sept mille nous nous ñu ngi moi ponçage bi tous sama fa la ouvrier nekk mercredi prochain dinañ ko livrer nga avons le ponçage bi rek continuer di faire. voilà esplanade il y' a aussi les les caniveaux. Euh, de drainage des eaux pluviales avons aussi def nañ ko ñu euh, grilles avaloirs ils sont livrés à 100%. Nous avons des raccordements ñu raccordement autour des grilles avaloirs donc si parle de clôture de des esplanades il y a aussi la clôture La clôture aussi presque à 95%. sur les 13 portes yi fi a ben moo des bu ñu bu local technique bi Nous avons xaar ñu groupe électrogène peinture bi ñu koy def la couche de finition ak euh, porte yi ak euh, la finition des marches d'accès yooyu yëpp def nañ ko voilà y a aussi tout ce qui est alimentation en attente pour l'éclairage yooyu def nañ ko lampes yi ñewna on attend juste nettoyage bi pour poser les lampes donc ci clôture bi dafa am trois portiques yi marqué entrée et ak entrée góor ñi entrée principale bi moy l'entrée officielle mo am ñaari portiques yi nek ni den ñom ñaar fa la entrée officielle fi ak ben entrée c'est pour les véhicules d'entretien yooyu boo xam ne soo dañ avec ben angle de courbure pour permettre les gros engins ñu mun dugg ci jumaa testé nañu yooyu donc pour les Marocains, les trucs déjà ont fait les couvertures et la décoration intérieure les marocains ont fait def habillage une décoration yi ci lañ toll noonu comme ni ngeen koo gisee ñu ngi nii ci biir jumaa ji nga xam ne macha allah yëpp pare na comme li ma doon wax soo xoolee nettoyé na ko société bi ñu jël nettoyé na yëpp te tap yi ñu doon commandé woon ñëw na soo gisee démb ci ci xaaju guddi trois heures du matin lañ nettoyé lal tap yi nii benn échantillonnage mu ngi nii am na toutes les dimensions yoo xam ne day permettre ñu lal avec les contraintes de poteau yooyu yëpp c'est prévu bu ne ak fu muy nekk c'est localisé yooyu yëpp bu ne mu ngi nii voilà c'est des tapis yoo xam ne comme yi nekk.

donc euh, continuer de santé Yalla rek comme clim bi nu mu toutes les installations yu fi def ba tey jii nii yàlla sutural nañu ci dimbal suñu borom ak euh, suñu ñaanu sëriñ bu sell bi Lepp niñ ko bëggé won, non la jaaree macha allah ñu ngi continuer def les réception finale avec le bureau de contrôle pour euh, en vue de la future certification du du du projet. fi ñu taxaw ni maa ngi ci fi ñuy wax el salle de prière principale mooy bi suñu sëriñ rahmatullahi sëriñ Abdoulaye Sy Dabakh rek la bàyyi légui ma ngi ci coupole soufu 30 coupole 34 mètres bi bo xamné suñu ginaaw ginnaaw dinañ gis minbar bi yi ñu nekk di finaliser manam lool rek mo dess ci jumaa ji fii ci bir inshallah rabbi le 5 Turquie dinañu ko livrer ñu ngi poser marbre bi ni so xolé li fa nekk yëpp c'est une ya 47 tonnes de marbre bo xamné mo fa nekk yëpp c'est fabriqué par pièce yëpp adressé yoy yëpp en en turki lañ ko defar donc ñu ngi pré marbre bi normalement té lañu pare marbre bu wéx bi. après à partir de demain nous commençons la décoration toutes les peintures de trucs yi ñuy def ci lettres dorées le 5 nous koy livrer voilà moo je suis minbar bi je ak suis imam bi di Le mobilier c'est acquis incha allah dinañ ko livrer suñu nettoyage après ñu disposer nous di ñaanal suñu Babacar Mansour ñaanal ko suñu kanam ko guddal fanam. moom ak mbokkam ak taalibe yi ak jullit yëpp yàlla mooy ñu ba ñu jël jumaa ji projet bi caabi teg ko ci loxam incha allah le 14 septembre incha allah maa ngi gërëm gannaaw bu mu jëlee mbébét def projet bi dafa ñu ngi ko dënk waa jamaatu Nour as-Sunniya mu jiital ci président Hadj Matar Cissé mu ànd ak ñoom Hadj Famara Silla ak ñoom euh, mag yi baax ñoom El Hadj euh, Malick ñoom Hadj Bokar Ndiaye ak euh, waa comité pilotage yëpp. ñun nag ñi nekk fii chantier bi ñun dañuy ne suñu sëriñ ki ñu sëriñ bi booleel mooy sëriñ Moustapha Sy bu xalifa bi waaw ñu ngi koy gërëm ci taxawu bi ci nekkin beeg yëpp ñu benn yoon maa ngi gërëm sama binôme sama seex El Hadj Amadou mooy coordonnateur technique ak xale yi ñu booleel yi ñuy liggéeyal Cheikh Oumar Dem mooy l' ingénieur coordonnateur de tous les les techniques ñoom Khalifa Gaye ñoom Abdou Fall ñoom euh, faatu Kebe ñoom Aline ñom ñëpp ñu ngi leen di gërëm baay ñu kenn Moussa Diaw tamit bi nekk CD nekk suñu wëlëre nekk ku jàmbaare vraiment ñu ngi gërëm yëpp di gërëm ouvrier yi fi liggéey yëpp ñëpp wuñu kenn di ñaan yàlla ñom ñëpp tamit yàlla wéral leen guddal seen fan bañu féké bis bu baax bi incha allah ay madraki wa zulmin li zallamin wa sihrin li sahirin fa baghin li baghin la النبي فهو نبي الأنبياء من أول لآخر فهو نبي الأنبياء من أول لآخر نبي فهو نبي الأنبياء من أول لآخر فهو نبي الأنبياء من أول لآخر نبي فهو فهو نبي الأنبياء من أول لآخر صدقي فهو نبي الأنبياء من أول لآخر فهو نبي الأنبياء من أول لآخر أيوة فهو نبي نجانج فاتحة صلاة الفاتحة yéene ko sëriñ bii wér ak gudd fan defal ko ay magam sëñ Babacar Mansour sëñ Hadj Malick Maodo njaboot sëñ Hadj Malick yëpp te ñun ñëpp ñu dugalaale ci suñuy soxla ak suñuy aajo sëñ bi nee na yal na ko yàlla nangu yéene waale ci gàmm gii yal na ko yàlla indi ci jàmm yàlla nañ ko fekk ci jàmm bés bi ñuy joxe caabi yi bés bi ñu koy ubbi yàlla yàlla mottali yëpp sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di baalu xàq ñëpp. tukki wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كل الهجوم ممتثل الأوامر قد كرمت له الجنون من كبير عن كبير فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو الصفي الأصفياء وسيد الأكابر حي يا من لا يموت يا عالم الضمائر يا حي يا من لا يموت يا عالم الضمائر يا حي يا من لا يموت يا عالم الضمائر كنا علينا بسرور على الهدى بأهل فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو صفي الأصفياء وسيد الأكابر وهو صفي الأصفياء وهو صفي الأصفياء وهو صفي الأصفياء سيد الأكابر وهو صفي الأصفياء وهو صفي الأصفياء أصفياء أصفياء وسيد الأكابر إن أكبت من يومها أبكت بيوم الآخر وما نجا من أمرها إلا ذو البصائر الأصفياء وهو الآخر وهو صفي الأصفياء وسيد الأكابر ما لمن يجعل بمرء هذا الشاعر بشرى لقد من المنى بذا الهلال زاهر العناء بمدح هذا الشاعر بشرى لقان المنى بذا الهلال زاهر وصل يا رب العباد على النبي الطاهر وآله ذوي الرشاد وصحبه الأكابر صلي يا رب العباد على النبي الطاهر وآله ذوي الرشاد وصحبه الأكابر يجي العنا بمدح هذا الشاهر وشرى للمنى بذا الهلال ذا يجني العلا بمرح هذا الشاعر بشرى لقد إلا المنى بذا الهلال ظاهر بشرى لقد إلا المنى بذا الهلال ظاهر بشرى لقد إلا المنى بذا الهلال ظاهر بشرى لقد